asalaamu aleykum himdillah baarikàlla mbaa defu leen dara himdillah baarikàlla ma ne fa nit ñoo xam ne fuñ toll ñu ngi sikk nit ñi manoo ci dara noonu lañ bindoo aha po metti nag waaye noonu lañ bindoo manoo ci lenn gi nga ni ne fu mu toll mu ngi wut wax ne diw nii la mel kii ki kaa nii la mel bëy yaa ya fii lañ jaar dimb gëleeg soto gële day du ñuy meññ bu baax soto gëlee gën a meññ guy gële borom fa du te mënoo ko jox garab ndax yow borom su fekkoon ne moom wét na xamal ne moom du topp àddina si di wax nit ñi ne diw nii la mel kii ki kaa nële la mel pour nit ñi foog ne moom mooy ku baax ki du looloo tax mu di ko def mooy ne kële fa bon def naa nga ma naa nga am a kële lim def a kële lam wax aha kële lam def te man duma ko def mooy ne yow yaay ku bon ki kële mooy ku baax ki sori yow yaay ku baax ki ku bon ki ku ne xam ne doomu aadama yaay nit fa ñuy waxtaan te doomu aadama yaay nit yenn yi fu mu jaar nga jëw nit nit rek la let's let's just be reality let's just be real ndax yàlla fa ne nit ki boo ne fa rafet sax te wax ko ci gannaawam loolu jëw la kon nag ñàkk a jëw yombul waaye yenn yi duut jëw soxot ak mbon la nañ waxante dëgg yaa ngi may dégg ñun suñ communauté bi yu ñàkk fayda lañ lay sikkee nag mu jaral leen ñu direeku di ci wax wala dikk ci vidéo di ko wax pour nit ñi sikk la yu ñàkk fayda loo xam ne yow du ne nga ngaa def loo xam ne fay yàq communauté bi du ne ngaa def loo xam ne yow lu yàq communauté bi la wala dara ah yow loo xam ne sax lay da ñoom fa ñuy foog ne sax loolu moom nga def te fekk sax defoo ko nit mën naa sikk nit ci lu ne tey tey mënoon nga maa kool xëyuwoo téléphone bi nga dikk ne Ami Jóob kool naa ko xëyuwut te fekk Ami Jóob xamoo lu mu doon def for exemple soo noonu la community bi feñ miin koo xam ne it fay naafiq ak rambaaj ak koo xam ne fa ragal a dund xadunaam feñ miin ku leen di dardaree bañ mel ni jaam bu ñuy waaj suuli kenn fi duhut jaamab kenn nag yàlla mi nga xam ne moom la nit ñi doon jaamam sax nit ñi ci bëri du ñuy dar dari ci kanawam ci ci ci ci kawam ñu ngi def fetek mel ni Ami Jóob waxtu wu leen neex la ñuy julli leen yàlla waxtu wu leen neex lañu koy def surtout yow doomu Adama Njaay bi yaa ngi may dégg te ñun suñ communauté bii li war a jàng mooy di wax déedéet mhm. déedéet mel ni mi ñuy ragal a loolu it fañ ko war a jàng communauté bi fañ miin di jaamu nit xam nga lu ko waral duur yu bëri yi ñuy duur buñ doxeegu ne dóor yu bëri bëri yi ñu suñ yaay di dóor rakk yaay yeeg nijaay yeeg bàjjan yeeg ku ne rek nga jàngiti ci waxi di la dóor nga miin di moo tudd ci ci àngale ngay miin di ànd ak nit ñi luñ luñ bugg a def rek nga def ko ndax nga am jàmm moo tax nit ñi foo toll yaa ngi jaamu nit ñi mel ni mel ni ab jaam bu ñuy bu ñuy suuli gis nga nit kuy jaamu nit dëgg du kontaan nit ni ñu yàlla bindee doomu adama njaay bu ne dafa am ego ego mooy comme ça xam xam waaw noonu lañu yàlla bindee naturally doomu adama njaay bu ne fay mën a joxe loof doomu aadama njaay bu ne fay mën a joxe xéet doomu aadama njaay bu ne fay mën a joxe fay mën a xam ego ba pare mën a wàccee boppam it koo foog ne mënta wàccee boppam mën na koo wàccee nga koo gisul fu muy wàccee boppam rek xam na ñoo xam ne fa ñuy bañ wàccee seen bopp si nit ñi waaye buñ gisee xaj wàccee seen bopp di fa xaj ba gi nga li ma la wax pour nga xam li tax ma wax loolu gi nga yenn yi naturel yàllaa ko bind tabax kook ñun mu ànd ak suñ yuur gi ànd ak suñ yaram wi mënoo koo wecci xam naa loolu waaye yenn yi soxot la de ndax yàlla bu ñu bindee xee noonu ñu xam loof ñu xam jalosi ñu xam loof ñu xam xéet ñu xam lay naa lii ñu xam lay guma lii nii naa ba tey yow yaay seetit yow ni nga xam ne jaaduwul ku la ko doon def bu ko def sa moroom su fekkee yow nit koo xam ne nga people pleaser nga gaa si butu baraw ami jóob hmm? foo toll rek yaa ngi ngar-ngari ci nit ñi nag lu leen bëggal ngay hut mu nit ñi mënoo xam lu leen bëggalee noonu xanaa nga fàtte sa bopp bañ di la waaja robi te ngay reen ak ne dara jotu la waaw su ko keneen melee waaye xam fu muy xem ah? seetaan ko su fekkee ne keneen xam na nu ñuy waxee déedéet mbala xam na su fekkee ne yow sax yenn yi li ngay sikkee nit ki duur sax luñ koy sikkee fii koo fi gis ba ne fa bon xamal ne yow ah, xam na yoo def yoo xam ne tey nit ñi mën nañoo taxaw ne yaa gën a bon kële téeméeri junni yoon bu ko nit ñi doon wax koo taxaw ne fa bon xamal ne xam na junni yu taxaw ne fa baax das the reality ñun ñu ci bëri yi ñuy waxee yi ñuy jël di wax ne fañ bon yoo xam ne lañuy yu ñàkk fayda la ñàkk fayda mel ni kañ so mente laato moom la ñuy jël di forot di for koroms yi koroms yi la ñuy koroms mooy ruusit ruusit yi la ñuy jël di ko for di ko sepaato xama di ko di ko for naan naan kël këlee kii ki kaafa bon yow jël sa ruusit yi sa ruusit yi boo ko foree rek mu jeex ndax yow sa ruusit yi mooy li ngay taxawee fekkee ne ku ko nga ne fa la def lu bon sax xam nga ku ko la koy def kenn fekkeewu ko léegi yow nga ñëw di wax nañu ne kii ki kaa nangama nangam ay yu ñàkk fayda ne loolu la kooka def lu bon pour nit ñi fa ne mooy ku bon ki yow yaay ku baax ki surtout ay yu ñàkk fayda yu mel ni diw ma koo nëyu hëyuhut ma kii ki kaa ma koo ma de ku bon la dikk di ko wax ci ay vidéo haa community bi fa sibbutu de ku foog ne community bi fa sibbutu nga foog ne yow nga koy faj xamoon nañ koy fajee te yow ngaa war a jëndi paracetamol ak chloroquine àddina si yëpp naan ko njëkk yow ba pare xuti xuti xuti xuti xuti mbana xuti xuti ab ndaa ah xuti ndaa ak ndox naan naan paracetamol yi àddina si yëpp balaa nga balaa ngaa faj nit ndax yow nit koo ne yuha yuhoo loolu lum jaree nga dikk di ko wàcc xaddina si bay def ay vidéo di wax dina si ne ne ne ne diw fa bon wala fa xam ko ma ne xëywu ma ma te kooka fa bon moo tax te borom fay def vidéo ni man de waaye fa foog ne moo gën nit ñi ndig li ma ko nëyu xëyu xëyuwut ma he yow ngaa xañaane borom borom su fekkoon ne fa fa fa do koo xam ne TikTok mi lay wala wala wala YouTube mi lay yow yaa ko ëppale ay nit ñu lay seetaan ah? nu konoon doo ko faale ba di ko nëyu lu ci bëri bu xamoon benn benn nit ku koy seetaan wala ñaar doo ko faale ba di ko nuyu ba di ci xëccoo ba di ci def vidéo yi defante di woon xaa dina si ne ku ko fa bon yow yaay ku baax ab dof na ngay foog ne yow yaay ku baax ki ku doon nit ku ne nag xam ne yow ku ko boo jotee xoon ak moom jotee bu xam fayda sax li ngay dikk fii di ko wax nit ñi rek loolu ci boppam rek mooy ne kon fa bon waaye yowit ngaa bon ndax da réalité buy man maa ko def sax ndax su dul loolu mën ngeen a xem fa ngeen jotee rek su fekkee joteewu leen fii xanaa yéen mu jotee ci ci ci ci ci vidéo yi xaddina si gis gis li ngeen jotee waaye su dul lool su fekkee li ngeen jotee diwut ci vidéo yi ci bëti ci gannaaw vidéo yi la yow boo dikkee indi ko ci vidéo yi di di di weer jotee mi di bugg nit ñi foog ne kële moo bon yow yaa yow yaa baax yow ngaa bon moo tax ngay indi problème bi ci vidéo yi that's the reality ku wét ku ko dégg loolu lay xam xamoo loolu fi ne nañ leen def suñ bopp nit communauté bi xam naa ne fa sibbitu te paracetamol yi fa manqué naan nañ ko yépp ba mu jeex te mënuñoo donit xel mi mooy paracetamol mi te kenn bëgg koo yuus paracetamol ab xel nag naqa fa naqadee yuus de naqadi na naqadiwut wax sa bopp dëgg rek mooy garabam waaw wax sa bopp dëgg tàmbali di luqati sa paracetamol yi ne si sa yuur gi di ko naan di wax sa bopp dëgg waaw ba nit ñi ngay def mel niti xaa dina si yépp a bon yow yaay ko baax ki yow sa bopp boo baaxoon doo def noonu seppi sa bopp ni sëb <laughs> waaye community bi fa naqadi mbir fa naqadi mbir kenn fi diwul ab sëb di seppeeku taxaw fële déedéet benn sëb bu ñuul ci cin déedéet ñun ñëpp ay sëb yu ànd xonq lañ wala ñu weex wala xama couleur buñ dokon yaa ngi may dégg loolu la loolu laa bugg a wax nii waaw xam ngeen lan la community bii fa sibbutu yow bu fekkee nit ñi fañ lay sikkati lu ñàkk fayda wala kenn nit di la sikk lu ñàkk fayda xamal ne moom ci boppam moo sibbutu moo tax muy wane ne moo baax dégg nga ko yow sa bopp loo mën a def def ko loo mënta def lànk ko waaw mbala nga wax nit ñi ne mënumaa def nangam jéggal leen ma de waaye nangam ak nangam mënuma koo def jàpp sa bopp di leen seetaan buñ waxee bañ robi leen ñu noppi boo ko deful fañ lay rey te àddina si mënoo leen a bégal mënoo leen a satisfy boo xëyoon suba ba ngoon di nuyu àddina si fii ba koli kuli koroxit danañ xam luñ la sikkee ne ba muy wax ak man gémmiñam gi tuñam yaa nga wow mbala xete xete gémmiñam nga may rey waaw yow yaay def foo dem doo xeeg fooy dem doo xeeg taxaw di nuyu te du tax tere ñu sikk la àddina si yëpp mënoo leen a nuyu su fekkee ku nit ñi xam nga ah junni nit xam la man nga xaddi si yëpp nga taxaw di wax ak ñoom kenn ku ne nga taxaw 20 minutes di wax kon doo xegg foo jëm ka koy wax fa dof moo tax mu di la ci sikk bu doon moom la manu ko waaw jàppal sa bopp bu ci mer bu ci tiit community bii kenn ku ne soo buggee a def dara jógal nga def ko bu la nit ñi di xasit waaw kenn ku ne soo bëggee jóg jàng métier pour def dara loo xam ne moo ne sa xol bi nga bugg jóg jàng métier booba def loola loo xam ne fa ne sa xol bi te wóor na ne soo ko defee ba mu yàgg ci danga mën nuñ danga ko mën a def te dana la jëriñ jëriñ askan wi. Hmm? muy jaay la muy jënd la muy defar lal muy defar yére muy defar oto muy muy vidéo lu manti do jógal def ko nga koy nga ci ne di ko jàng ay xat nag doo ci xam dara buñ la xooxee dof nga ne pat buñ la xasee nga ne pat. mais ni ko dof di def la ngay def rek xam la nga xam ne patt jàpp sa bopp lum yàgg-yàgg ah sa bés dana dikk sa sa la ngay def njëriñ la tàmbali di di dikk te nit def lu la neex dara daq ko waaw defal loo xam ne fa la neex te danga ci jëriñu su fekkee métier moo war a jàng la nga jàng ko buy vidéo la sax loo war a jàng la ndax vidéo yi noo ci gën a yàggee gën a xam ni nga koy defee nit ñi gën laa xam bu yàggee mën naa soppaliku métier nga ne patt na joogu jàpp sa bopp kon nag kenn ku ne defal loo xam ne moom nga bugg te moo lay jëriñ waaye na doon loo xam ne bu mu yàq askan wi na doon loo xam ne sa doom bu ko doon def du la naqari sa doom yi mag sa doom yi rakk bu ko doon def du la naqari nga def ko ne pat communauté yi fañ mën a sikkaate te mën a xaste te si butu si butu bay karkari bañ di ñu waaja robi lañ def te parastamol xamul dégg ngeen ko lii laa dikk wax si leen file xendu leen jàmm nag ba beneen yoon danaa dikkati incha allah ngeen xendu jàmm baay ngeen tekkee <laughs> Bye.